تؤثر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والخبز الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان كمثل الإنسان من تلتال كالفخار وخلق الجنة من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المعرفين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبقيان Jangan كان يريد الله واليوم الآخر فبقم di mu jaar li mu daanelee yonente bi sallallahu alayhi wa moo wax ni képp ko xam ni gëm nga yàlla gëm bis pénc bi ba lër sa ah, ak borom dëkkandoo yaakaar naa bu ci lorante amee rek yàlla du mën a baale loolu tabaarakallah ñan ñoo ci toog Baye Niass ak Ousmane Diop ak Baik, jadilah Assalamualaikum Obrigado, professor. thôi lấy naa fekk salaasu ñett la isa xadasa kasaba munul waxtaan ba waxtaan bi jeex te du si fen wa isa waxada axalafa boo leen joxante rendez-vous da lay wat wa isa utamina xaana boo ko wóoloo dénk ko sa alal mu lool tey yàlla bi tàcc leen ko baax masha allah loolu nag loolu ñun ñëpp ñu yóbbaale ko ñun ñëpp nañu yóbbaale xadis boobu ñu yóbbal nga ñëw foofu asalaamaaleykum wa rahmatulah الله تعالى وبركاته jàngal nañu ci benn xadis nee na yàlla xoolul suñuy jëmm ñun ak suñuy melokaan li yàlla di xool si ñun mooy li nekk suñuy xol ak suñuy jëf am na solo nag Ibou Niang Ibou Niang ban saar la ñuy jàngal suuratu taariq aja bi loolu ba pare assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ¡Ay! sallam yi nee nañ ku ñu fay sa bër ba mer li nga leen la woon baaxul fokkaan seet yaa ñuy jàngal lan sóoratu nax la ajab ñu yowal ba pare ngay jàng suratul Fajri di nga jàng hadis ah ca pat bi yoolu pare assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh خير خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها وروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام لي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Okay, touch it up now, thank you. Hey, that's myself. Yo. Suratul Mursalati Bang saya kok udah seperti Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Jelle Praje aja ada Suara ada aja yang lan ngeen kan di tari suratul maaw suratul maaw wa aja ñew len ko Assalamualaikum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala bokk jotaay bi ñu koy nuyu moom tamit daanaka rek ci daara ji la bokk ndax du fi gëj te heure fi ñëwee bokk nekk fii macha allah ñëwal ne tuuti bokkuñu waaw ah, dama xaar ko ci siège bi toogal ñëw rek dari ba pare day toog ci siège bi yëpp nag saa ñu ne ko rek. village ci Quraysh noonu la boobu yow waxoo dara de ban saar la Quraysh yow dégg naa la kii laay laaj ban saar yi ban saar ngeen di tari waxal fii ah, ok nuyu leen leen ba pare nuyu leen assalaamu aleykum wa rahmatullaah loo ñuy jàngal Adama Cissé sa lan la Adama Cissé sa lan la sa pap wala sa nijaay sa pap ah aywa acca di yowee nga sori فأنا فأنت عنه كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في سوق مكرمة مرفوعة مطهرة بأي سفر كرام بررة قتل الإنسان خير شيء خلق من نقبة خلق فقدر ثم سبيل يسر ثم أماته فأخبر ثم إياك أسر jur jëkkëram bii moo jur doom tuddee ko ko c'est pas évident nag man loolu moom yaakaar naa bëriwul lu ma koy gis nga nekk ci kër bi sëy sa góor bu góor am doom tuddee la ko jël ko may na ko xale bi moo nekk nii mooy jawar Pape Dramé loolu nag exemple la ci jigéen ñi soo dëgg yàlla am na loo xam ni boo ko bëggee ci kër da ngay nangoo da sol wala ñu ne ku bëgg a jur mbaxana da ngay nangoo loolu daal la yaakaar naa su fa nekkoon di ko laj di ko laj paa bi wala muy rek kër njëkk yeeg borom kër du ko ko tuddee doom macha allah waaw loolu message boobu ma wax léegi Souleymane Dramé ban saar nga ñuy jàngal suratu buruj aywa wasama'i zati buruj dugal ba pare. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh والشاهد ومشهود قتل أصحاب النار ذات الوجود والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب عليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الخوف الكبير जो भलाई जो भलाई बस हार गए तेरे सूरत उठी आमा जो जो बोलो करे अस्सलाम वालेकुम व

yalla yalla na yàlla ko sutura bu baakha baax. du sax si di yeewal nga jàngal ñu sóoratu sax Dios los billahi lazim teew parce que bagage yi nekk fii yëpp après ñeneen dañ koy soxla waaw di jéem a góorgóorlu nag soo gisee nag ñuy jël remerciement yi di ko dugalaale ci biir waxtaan bi ak euh, nuyoo yeeg ziar yi dañu am temps bu ñu demee ba pare heure bi jot nga nekk fi di remercier nit ñi wala des a sax nga bëgg ko remercier du am temps toog bu def moo tax ku ñëw rek dañ lay dugal remercier la incha allah nga toog nga xam ni heure bu ñu bëggee yëkkati jotaay dañu dañu dañu dañu yàggal dara waaw liggéey dalal Mouhamed Dramé waxuma fii nag Mouhamed Dramé bi muy ñëw dafa fekk beneen Mouhamed Dramé di waaj a tari kon ñi koy nuyu bu baax Mouhamed Dramé moom tamit di responsable politique jiite mouvement bi ñuy wax Raza ak ñi mu ko àndanteel ñëpp ñi koy nuyu di ko ziar am na taxawaay bu rëy bu mu def ci bis bi incha allah. bu turandoom bii Mouhamed Dramé jàllee incha allah danañ ñëw ci moom Mouhamed Dramé yow ban saar nga ñuy jàngal suratu waxal bu baax Mouhamed xanaa mbécc bi dafa rees Yaasin waaw Mouhamed dégg ngeen ko suratu Yaasin la ñu bëgg jàngal Mouhamed daal ma jox la micro bii nuyoo woon ba pare. أعوذ بالله من الشيطان السلام xale yi dañu xaw a sakkan macha allah xale yi su fekkee li mu leen solal leen tey teggi na charge boobu te du loolu rek de dafa am yéene daara ji mu defal leen ay uniforme comme ni ko yeneen école yëpp amee loolu moo nekkoon yéene bi waaye ci diggante bi ay xat-xat am conférence bi egsi mu ni dina fexe ba xale yëpp mu solal leen te incha allah yéeneen boobu xam naa ni mi ngi koy bàyyi xel bu baax ñu ñaanal ko yàlla moo xam li mu bëgg ci li mu nekk yàlla na yàlla defal ko ci ay ndam yu kawe kawe kawe kawe olof yi nag nee nañ kuy raam di la bokk su la waxee su ma amee oto yóbbaale la nga war koy gëm kii bu waxee su amee oto dugal ñi si ñu war ko ñu koy sant amet ñu ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla yàlla yàlla yokku sutura yi te fi nga bëgg a egg yàlla eggal la fa mu bañ a am benn ndox ci barke wa sallam xale yi kontaan da nga am loo ñuy sànni fa tabarakallahu li ma Dramé ñoom itam tabarakallahu noonu lañ ci jàppee waaw ah waaw sa turando la sa xarit la kon fa tabarakallahu yàlla na leen yàlla taxawu moom itam lépp loo xam ne waaw wax na ma ko moom moom wax na ma sa baax yow amee Dramé Pape Dramé wax na sa sa sa diggante moom waaw nee na da ngeen dëkk ba pare te boo ko gis gaare soo oto wàcce wàcce yow ñu nuyu ko jox ko cëram kon yàlla na la yàlla fay di jaay si sallallahu alayhi wa sallam te voilà ba tabarakallah kon mbaax rek moo moo jar a roy mbaax rek moo jar a roy te montre yu baax yëpp ñooy bokk heure yàlla na jar yàlla na leen yàlla fay kontaan nañ lool kontaan nañ lool tabarakallah kontaan nañu yàlla na leen yàlla fay képp koo xam ne rek dugal nga ci si sa dërëm wala yéene wala xalaat yàlla la yàlla fay kontaan nañu tabarakallah euh, ko defee ñu teeluwaat rek continuer liggéey bi incha allah lii nag mënul ñàkk dafa fekk ne rek nag bu rëy moom ci bis bu rëy rek lay dee waaw te ku ko ku bañ ñu wax ko rek bul ko def ah alaaji nee na ànd ak yar boo too buñ toogoon ba dem te tuddoo cere moom dina am gerte lool seen kër seen kër la jaay cere waaw aywa kon ñu continuer Ousmane Dieng moo nekk ci kaw ko jóg Ousmane loo ñuy jàng suratul Maarij yi Ousmane واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا cancer uh, moom boo gisee jooy yu bari dafa waroon tari ànd ak seexam seex bi dañ ko yóbbu daara woo tax xol bi fees euh, su ko defee ñi ngeen gis ci ginnaaw tamit yi ci teraanga yi nga xam ni waa Razane def nañ ko jël la bokk muy mouvement bi Ahmed Dara bi jiite ñële ne Hallelujah. sëriñ sëriñ dañuy jadi balaa sëriñ si jot ñu ngi Ahad Dieng di kau kau kaw ñu kau ko xam bi ci yàlla kenn xamu ko ci lugul jàngal jàngale liggéey jàpp ko da koy dafa yàlla ndax am na xale yoo xam mbiri jàng jàngin boo xamante ne bii yàlla nag pour ba xale yi saa su ne ñu jël leen tënk leen ci daay day leen jàngal jàngale mag bi lu am solo la dama ciy أولئك لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر خير منصور فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بيحكم الحاكمين صدق الله العظيم الكوب صدق الله العظيم ربنا آمنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتقدتموهم سعريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتكم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كل لبثتم في الأرض عشر سنين بجاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم di jàllale ay kàddu sant ak ngërëm ndax képp koo xamante ne nii santuloo doomu aadama boo santee yàlla du safe du ko neex ndax yàlla moo bind nit kon kaddu yi ñuy yëkkati kaddu yi cant la ak ngërëm di ci jiital nag imaamul akbar muy imaam Omar Diallo teg ko ci loxoom boole ko ak délégué de quartier alxaaji Demba Fall bu teg ko ci loxo waa bi yëpp ak mbooleem kilifa yi nga xamante ne nii ñu ngi bi ak ñi teew fii ci kaw pëjoon bi toog nii di nuyu bu baax suñu kilifa Baye Moussa Wade di nuyu Serigne Gora léegi la fi jógee di nuyu suñu mag mama di leen sargal di leen màggal di wax ne dëkk bi yëpp seen xol sedd na kontaan nañu di beral nuyoo nag suñu sëriñ suñu xarit waa dëkk bi yëpp xam ne ba yow bi nga xamante ne nii yaa fi nekk doon sëriñ daara boobu xale yi di leen jàngal alquran ci kaddu dëkk bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu lay ñaanal heures de temps ku toog ci xale yi day xam tel ni yow li ngay jànkoonte lu metti la lu tar la waaye yàlla nag dafa am pay yàlla na yàlla fay yàlla kàttanal la dooleel la dafa dëkk bi yëpp jàmm ak salaam waa dëkk bi de gën nañ ci daara ji daara ji nag bu ñuy gërëm xam ne di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan ak mucc ak xéewal ndax alquran bii muy def ci xale yi mënuñu ci di en arrière di ci tuddaale imam Omar Diallo ndax béykat bi njëkk a sax bopp bu ñuy gërëm oustaz xam ne dafa fekk ñu gërëm imam Omar Diallo ba pare ak ñëpp ñi ngënk daara ji fii ci di ci def seen xam-xam di ci def seen doole di ci def seen temps ba daara ji toll fii tey bon ñu ngi leen di boole gërëm li doon ñëpp di leen ko jox ci kattanu yàlla ak mbaaxam yàlla ni am doole am mën-mën. am sañ-sañ yàlla na leen yàlla defal ci alxuraan ji lu kawe seen njort oustaz Ahmed ñun ñëpp day dëgg nañ ci yow nañu suñu xol sedd na liñ la yéene amuñu ko waaye yàlla am na ko yàlla na ko yàlla defal bis bii ne tey dafa nekk bis boo xamante ne nii bis bu am solo la ci dëkk bis bu rafet la ndax bisu alxuraan la sànq am nañu fi doon tàgg di leen gërëm taxaw nañu def comme ñun xale yi ni ñu def muy soxna Adja Khady Gueye def na comme xale yi nii conférence na fii man ma bokkoon ci ñeneen ak ñeneen kon loolu lu am solo la alxuraan bu réer bu dem fenn kon yal na la yàlla jàpp jàppale waa daara ji yëpp sàmm xale yi te li ngeen namm ci ñoom ci alxuraan yàlla def ko parce que alxuraan wàcc ci ñoom ñëpp góor ak ngeen mag ak ndaw yal na ko yàlla def pour gàttal nag dañ ne nit su defee lu baax da ko koy wax ndax ëllëg. ñun day lu baax lu ne luñ teg suñu bët danañ ko fësal danañ ko wax waaye lu ñaaw luñ gis danañ ko nëbb suñu këtt laay kàttan euh, président Razan Solomon Ahmed Dramé jërëjëf jërëjëf li nga def nit ku ko xeeb yàlla xeebu ko ndax man amala saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha képp ku def lu baax sa bopp nga ko defal te yàlla léegi la ko xale yi doon jàng léegi képp ku ko lebal ker moom yàlla guddi gu sax dàkk la lay fay kon li nga bëgg ci yoon yi nga jaar yaa ko xam réew mi kenn moomu ko yàlla moo ko moom ñun ñoo ci nekk nekk ay xalifaam ci kaw suuf yàlla la kon yow ndamu quartier bii nga ndamu yarax yëpp nga parce que ndamu yarax yëpp buñ doon def social bi nga doon fi de ëppale fi de ñu ëppale fuuf moo fi nekk man ñang man fekkee wax dëgg day ñuulal nit dootuma xees man damay wax dëgg de te yàlla rek tax sëntuuma ci dara xaaruma ci lenn mais yaa ko def il faut que ñu wax ko ndax yàlla gën laa fay fay ñu ñun ñu koy wax te yàlla rek tax da ngaa def lu baax mag ñiy toog tey sant nañ la gërëm nañ la jigéen ñiy toog sant nañ la gërëm nañ la ndax genn booloo dafa gudd mais loo ci laal borom yëg ko social bi ngay def dafa am kilifa bu mag muy Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ngeen jëgal ma rek lépp ñu julli damay eggale dafa dem kenn werantewul ni nitu yàlla la a waliyyu wa rasulu anbiyaay bu mu taxaw fekk na fa mbooloo pour jàkkaarloog suñu borom mu leen defal ay xéewal bunt yu bari mu gis benn bunt juróomi nekk fa mu ne bi fan la te ñii yàlla di leen di recevoir di leen defal li ñu bëgg mu ne ñuy joxe seen alal te rek tax ku feebar yaa ngi def ci daara yaa ngi def ci dëkk bi di def ci mag ñi def ci ndaw ji kon jërëjëf su ma la ko waxulee du baax kon dama la koy wax nga koy dégg dina ko àdduna yëpp dégg am na président Razane yow li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla defal ci réew mi ci Sénégal nag te mu jig la jig ñu di jaay Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam su may terminer rek ci suma imam lay terminer doo ko jël kàddu bi nga xam ne nii ñii di waa Daaru Salaam ñoom ñoo ko war a jox ci leen di jàngale xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ki gën ci leen mooy ki jàngale alquran ba pare ñu ko jàngale kon yow yaa ngi gën oyof la ñun ñoo ñëw ci yow nga ñuy xirmal attaaya di ñu toggal ñuy lekk di ñu jàngal ku ku professionnel la ci cin daf ñuy toggal ñuy lekk ñuy naan te bu ñu toogee ñun di waxtaan fii suñu waxtaan waa dula moom day toog rek ci kaw ñun ñooy pare rek dem ci oustaz xam ne bon oustaz xam ne il faut ñu teewse la wax ni sëriñ nga sëriñ nga sëriñ day gàtt tànk ci lu yoonam nekkul du werante du bëri commentaire te yow ci ko yoonam ci yow te da nga góorgóorlu di jàngale El Hadj Yoro jërëjëf Yoro Fall bu baax a baax a baax a baax alxuraan di ko jàngale image bi buñ ko wanee ci yàlla kenn mus yàlla nañ yàlla sàmm aar ñu jëfal ñu ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kado bii xale yi ñoom ñoo ko bëgg a jox seen oustaz seen sëriñ moo ngi nii ñëwal nga joxal ko ko wa daru salam man ñemuma wax tur wa legi fi la du am li def loolu noo tudd loolu noo tudd loolu noo tudd ci barke Borom Tuuba barke yonent yàlla Muhammad ci barke alquran yalla na yalla may xam xam ci diine yalla may leen ay borom kër yu ba ba ngeen nek ay ya sayyida yu aduna yeb xam ci barke alquranul karim jigen ni jigéen ñi jigéen ñi sunu yaay sunu yaay yi suñuy bàjjan suñuy soxna man maa ngi leen di dénkaat ne dañu gën a feddali laxasaay yi ndax yéen a ëpp lu ngeen di nekk xale yi kët waajur yu góor yi gën leen a béy ci ñoom gën leen a góorgóorlu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa gisoon ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima su ne daf ne farata la moom dañ ko waxoon iqra kon gën leen soññi borom kër yu góor yi gën a feeñ ci xale yi ñu dem jàngi diine oustaz fii lay toog 2000 francs lay xaar am ku koy amee 3 mois xale bi dem ci école publique bi ñu koy jàngal papaam day enseigné wala yaayam 3 mois fay ko te 35 mille yàlla la 2000 ñu naan xale bi tey mënoo jàng parce que nangam kon nañu delluwaat suñu xel ci yàlla xam ni wala dafa ci saako bi saako إلى ربك مثل المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كفر وتولى ثم الأمر إلى أن يتمتع قول لك فهنا يوسر ثم لا لك فهنا أي يحسب الإنسان jërëjëf dégg nañ kontaan nañ tur gii nag sama kër baay la man soxna si wala sama kër la wala du nabu jigéen de nabu soxna mooy kër gii wala ci topp sama moo ma ko jëndal wala moo ma yóbbu mag ku ne na nga rayati ci loolu kon su ko defee rek فكان شرابا